Arna ñu waxtaan lu yàgg ci guddi gi xamoon naa ne aussi dafa feebar waxtaan nañ ci mais dem na àllaaxira ak ay mébét yoo xam ne réew mi la ko ameel te yàlla dina fay yéene il est parti avec enthousiasme ci li mu waroon bugg def pour réewam après am ci ngëm-ngëmam maa ngi seede yàlla ak may dégg Thierno nag may dégg même ci temporalité bi li mu fa war a toog pour liggéey ko waxtaan na ko ak man ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare aljana sunu benn mag mu tudd Alioune Diagne Kumba Aïta